moo ci am solo waaw mbedd mi nag du ci am solo mbedd mi du ci am solo loolu mooy li nga xam ni moo xew la tabarkalla loolu la yàlla dogal mu mel ni kon jamono yàlla ak sunu kilifa tax na du nu mën a jommal mënul nekk ndax itam wax dëgg yàlla bare na doole moom jamono waaye am na ñu ko ëpp doole waaw am na ñoo xam ni ñoo ko ëpp doole su ko defee bu dee jamono bu demee nii nga xam ni tabarkal la njaboot yaa ngi nekk bi ci réew ñenn ñaa ngi nekk ci biir réew tabarkalla ñi ci biti réew bu waxtu wu mel ni jotee ñu ñëw ñi fi nekk itam te seen njàmbaar àgg ci ñu bëgg dem biti réew itam ah taxaw temm ci lu mel noonu yooyu yépp kóolute rek ko war a lal parce que jàmbaar dafa wóolu waaw jàmbaar dafa wóolu jàmbaar dafa wóolu jàmbaar bu wóoluwul àdduna tukki waaw su ko defee nag yu ci bare ñu di ko biiral te bañ ko biteel waaw yu bare ñu di ko biiral ndax ci la ñuy amee kàttan dëgg dëgg dëgg dëgg waaye buñ ko biteelee ba mu ëpp dafa am lu mu jur dafa lu mu jur lu ci nekk rekk nga def at tariqa al wasat waaw xam foo caa yem xam naka nga ko defe waaye du tee nag sa yitte sa yitte bu mu am limite surtout boo amee kilifa bu kenn amul war nga fexe ba sa yitte bañ a am limite waaw ah te sëriñ jóoba daf daan wax ni ñett dama leen di mere bu ma déggee ndaw lu giñe Maodo dama koy mere ndax sëriñ Babacar mu ni bu ma gisee taalibe bu ñàkk fayda ba moroomu taalibeem def ko taalibe dama koy mere nee na bu ma gisee njaboot bu yéenewul kilifaam ndam dama koy mere ndax bonam waaw sëriñ Jóoba moo ko daan wax tabarkalla la góor gu yàlla defaloon fatxu la mu mel ni kon nag ñoom ñi ñu fi bàyyil rekk ci li ñuy wéy ndax rekk mooy njëriñ bi fan yi rekk ñu waxtaan waxtaanu tabarkalla tabarkalla xale yi jàmbaar lañu ah te def ci am sët yu nga xam ni dañu xaw ñeme tuuti lu leen jaaxal rek buñ ñëwee wax ko ca digg ba te loolu lu am njëriñ la ca temps yële am na ku ci ñëw seet si ma ni ma dama la doon laaj si maam Alaaji Malik ñaata nit la jàngal ma ni ko ñeent mu ni ma ñeenti kese kese ma ni ko ah, ñeent laa ci xam di yi ci des xaw ma leen te looloo fi ne ku nekk ak sa sëriñ wax dëgg yàlla ne ko ñeent rek laa ci xam jeex na li ci des xaw ma leen comme xaw ma leen nag duma leen lim waaw mu ni ma ndax am nga ay xarit ma ni ko xarit de yombul waaye am na ñu ma miin mu ni ma ñaata lañu ma ne ko jëlal sa kurus ba di leen lim ma ne ko ndax ñëpp tabarkal la tabarkal waaw noonu la toll ma ne ko ñëpp tabarkal la tabarkal la tabarkal loolu mooy li ci nekk ko defee nag di ci bàyyi xel waaw di ci bàyyi xel wa tabarakallahu ahsanul xaaliqin ah façon bi ngeen di jëfante ak ñun xam na nu ka ko moom ka ko moom ma nga ca bër sax tabarkalla waaye ah tabarkalla noo ko toogal ci seen kanam xam ne benn benn benn benn tappale nekku ci waaw benn tappale nekku ci waaw yàlla xam na ko sëriñ Babacar Sy waaw maa ko toogal ci seen kanam benn tappale nekku ci hmm. te ña xam ne ñépp nangu nañu ko ña xam ñépp nangu nañu ko tabarkalla tabarkalla fii réewu ma ak sama turandoo yaatal na ma ci la xam ngeen ko sax loolu xam ngeen ko waaw moom fii réewu mag moom yaatal na ma ci tabarkal la ba maa ngi sant sama boroom di ko sant di ñaan ci barkeem it lépp luy leer rekk mu baawaan ko ci seen kaw baawaan ko ci sunu kaw tabarkal la waaw su ko defee nag sëriñ ñaata waxtu nga am foofu eh, eh, borom borom laaj bi lii yonent bi tudd na ko waaye joxewu ci détail tudd na ko wante joxewu ci détail te aayul am na baat yoo xam ne aayul ñu traité ko parce que ca la ñu toll ak coow li bu fekkee bu dañ ko delloo ci àdd ñu xam ni ci àdd lañ ko delloo bu fekkee dañ ko delloo ci wax bu yonent bi wax ñu delloo ko ci te di jongal góor su sunn sunna sunu maam Ibrahim la ah sunna sunu maam ibrahim la waaye at yi yépp ñu ngi soow ni bu ci jigéen ñi bokk ak itam ndax yonent bi wax na ci walla waxu ci yonent bi wax na ci wante wax bi mu ci wax waxul ni dagan na waxul ni xaram na moom dal na mu waxe xam naa ni mën nañ ko ko interpréter شهد wante it ku ko miinul miinu ko ñu jàmmal leen ci boobu walla mais moom daal la mu ci tudd mooy mën na nekk teraanga jigéen waaye ci charte la wax charte ba nag boo ko seetloo ñetti yëf def ci aju mooy ki koy def kana spécialiste la walla doo spécialiste instrument bi ñu koy defee balle ndax dana gaañe walla du gaañ bi ci des nag mooy coppatil coppatil lañ la wax wante yooyu bala nga koo dajale coono dana bare donc buñ ko buñ ko xase aada ju mu tëralul dafa am ñoo xam ne dañu yabu ci moom lu mu doon rekk ñu ni jullit yi la jullit yi la jullit yi la te fekk du noonu moom lim ci waxu bu wóor la bu tegginu la bu mat a wattandiku la te bari lu ñu ko weddil ba jamono joxaat ko dëgg ba jamono joxaat ko dëkk waaye nag itam doo tëb tëb rek xaañ digg ba loolu kenn du ko def moom daal makrumatun la wax li nisa loolu rekk la ci wax soo bëggee nga def soo bëggul kay nga bàyyi ndegem góor ñi euh, ay paaxe ngi ci xamuloon li ñuy tuddee paaxe euh, du jeex ci góor ñi ci waxi walla paaxe mooy mooy ku ñeme wala jong am na ci wante itam tubaab yi bind nañu bërki démb ni gis nañ ni dina faj dina faj te man gis naa tubaab wóllëre sama wóllëre bërki démb rek mu jong kon nag yonent bi bare na lu ñu koy critiquer lislaama mel nii lislaama mel na te fekk demewul noonu yi ñu ko critiquer yépp lu mu ci wax rekk lu leer la du ci engagé kooku noonu rekk la bi ci des mooy ki ki kiy wax affaireu gént ndax nit mën na konte ci gént gis nga Sëriñ Babacar Sy wax na ci benn xasidaam ni janeer tepp tepp la boo xam ne mooy dundal xalaat janeer nee na tepp tepp la boo xam ne mooy dundal xalaat janeer moom tuddee alxayaal dana dundal tepp la boo xam ne dana dundal xalaat janeer nit ku ne nu kattanu janeeram tollu xalaatam mën na toll noonu wante ko amul janeer du am xalaat mi ngi tudd alxayaal am na itam lu tudd ab tayf malaan mu woyof la di la muural sa yóor pour nga nelaw di la muural sa yóor pour nga nelaw moom loo gis bu la sàngee ba noppi moom la ñoo tudde gént dëgg-dëgg parce gént xulum أجنت الرؤية بقي نخدن وخني جنت دقت لكي